dikkati naa ña doon laaj Bougane Gueye Dany day dem wuy ci dialogue ba président Macky Sallam déet Sall ngaari lam tooro bur géde talal na loxo opposition bi opposition boo xam ni nag Bougane ca la bokk Bougane Gueye Dany naan kon Sall bankal ndax ñëwuma tribune yéene kay naan maan rax ci dolli moom Gueye dee nga for ay jëli xeeram di jor président Macky Sall sànni yéene kay bi naan maan sànni daw làqulaam déet xanaa sànni taxaw kay janoog Sall naan président Macky Sall lam nuy wandu kanamam kon wooteeg dialogue gii du lu mu gëm démb ca bés ba nga ni ca lañ doon màggalee tasum xibaar ci réew mi waaye tam tënk nga xam ne tënk nañ ko ay taskatu xibaar ca la Bougane Gueye Dany profité nag dal ci kaw président Macky Sall l'enquête quotidien naan tasum xibaar néew na doole ci réew mi tribune yéen a kaay naan kon may nu ñu yeggaleeg Bougane la mu wax président Macky Sall ma nga naan moom njiital gëm sa bopp la ma wax du ma cateeltu ginnaaw jëloog yow maag président Macky Sall toogu maag moom te waxu maag moom ndax nag wooteem gii dëgg-dëgg dama cee gisul dëggu te lii ñu wax wax nañ ko barki démb F24 ne leen ñun ci boppam àndu ñun gëm sa bopp jàpp ci dialogue bi te wuy ji dialogue boo xam ne lu ñu fay def ndax sénégalais yi boo leen yeewee xaaja guddi ne leen sàll lu mu jublu ci dialogue am bii dina ne la teg xel fi mu ne daal sàll lu dul teg xel askan wi nekku ci wut ay partenaires yoo xam ni dëgg-dëgg ñoom lay àndal teg projet ñetteelu mandat am bii bugaan naan ñun gëm sa bopp théâtre boobu dun ca bokk suñu combat fi mu ne mooy sàll du am ñeteel bi mandat kon kuy jàppale sàll ci lool sax dañuy jàpp ne noon nga naan xam ngeen dialogue wi dialogue wi dialogue woo mës gis ci dil la daal di mujjee dil def ci ndoddu sénégalais yi looloo tax nag loxol sàll li nee nañ ko bankal dër bi naan kon waaye sénégalais yi la ñuy wax yaayay jooy doo dem soo moytul day boo jalogewul dina la dal ndax nag la la daloon ca parrainage ba dana la talati bugaat naan leen xam ngeen sénégalais yi faaw ñu xam ne man jàpp ma ne su nekkul njiitum réew may faatu déedéet defu ma ci ab fixation te gis nga su ma jàllu lit képp koo xam ne fare nga ci l'opposition bi nekk njiitum réew damay dem jàppale la parrainage bi ma ni la bu ma ca jàllu lit xeex président Macky Sall ma ko defee doon bu àndul ak président Macky Sall bugaan ne ma ngemb la ndax fi mu ne yéen gi lenn la mooy lëndëm gi nga xam ni sénégalais yaa ngi fa njaaxare gi nga xam ni sénégalais yi toog nañ ci jonkante te ci ne du ñu jóg lii laa bëgg génnee sénégalais yi watat leen jëmale ci leer garabu ger gi nga xam ne Sall jëmbat na ko ci réew mi te benn xob bu ne nekkub wor nekkub kàcc wax sénégalais yi loo xam ni gëmuñu ko loole laa bëgg sénégalais yi ngànnaayoo semmiñ ngànnaayoo ay jaas yoo xam ne dëgg-dëgg mën naa gor garab googee te loolee dafay jaar nag ci Sall leer leeral ñu ne troisième mandat duma ko def boo déggee la mu wax ak El xam ne Sall nekkul sax ci tànku bàyyi les fa yéene kaay naan maan F24 moom it ma ngi ca tànku Bougane Gueye Dany nee nañu ñoom it dialogue wun tey dialogue wun ëllëg rax ci dolli nag woote rassemblement boo xam ne fukki fan ñaar ci weeru mai atub 2023 lañ ko fas yéene amal ci réew mi las yéene kaay naan man Khalifa Babacar Sall demb ci ndajeeg F24 ba nekk fa Khalifa fu mu ne ak lu ko teree bokk ci F24 googee waxtu wa Walf Quotidien naan man diggante Mimi Touré ak Ousmane Sonko ratax wax ga daal jéggi na dayoo dañu koo menacé moom Mimi Touré Ousmane Sonko nag ngembul ko ne ko Mimi bul wax maa lay waxal xeexal laak say noon su soi naan man moom Ousmane Sonko moomee ñii laam-laamee fotom ga naan demul ca Gàmbi dëgg la Ousmane Sonko nga woon Gàmbi te photo bi ca bés boobee la ko Ousmane Sonko def yéene kaay bi naan man niki démb ñibbi si na Ndakaaru moom Sonko te naan man désobéissance bi Ousmane Sonko njëkkeew ko fi maître Ousmane Ngom def na ko ci rew mi ministre Omar Sarr def na ko ci réew mi Babacar naan taxul mu baax de ci vox populi mu fay xamle ni désobéissance civile mani la bu ko ñëpp defoon daanaka réew mi doon anarchie anarchie nag mi ngi tàmbali ci réew moo xam ne mi ngi daal di menacer ordre public bi daanu mujjee ci réew moo xam ne lu waay neex def daal mooy am ci Sénégal critique yéen kaay naan man neex def gi kay ma nga tàmbale ci Ousmane Sonko ak Mimi Touré ña ngay joxante mbagg ci ñoo xam ne législative yi daanaka xeex dong lañ deful yéen kaay bi naan man fii la réew mi toll l'observateur naan man fa réew mi toll te waxuñu ceet mooy poste boo xam ni boo moytul ñaari junni juróom ñaari téeméer ñaar fukk ak benn ci agent daañu leen dàq wala it ñu forcé leen ñu daal di bàyyil seen bopp ndax nag koom ci boppam koppar fi mu ne moo amul ca poste googee nga xam ne buñ ca waxul yéene kaay bi ne ma ci tëj lay daal di mujjee Sud Quotidien naan man baa presse bu réewum Sénégal du tëj classement mondial bi day fan ñu teg daal di nay sori lool ña nga jugee ci juróom-ñaari téeméer ak ñetti place ci 2022 bi kese xaaw bi ku nag ba ci téeméer ak ñeenti place ba tribune yéene kaay naan kon du jamais vu fanweer ak benn place daal dinañ koy ñàkk ndax nag ñàkkub liberté liberté ci presse bi ci réew mi le mandat yéene kaay ne ko Sénégal daal fi mu ne ñeenteelu pouvoir bi leen jël daal di koy xoj def ko otage l'enquête quotidien naan kon diggante tasum xibaar ak nguurug Sénégal ma nga mel ni sabar gu tas neexatul ay assise bu ñu ko amalul làmbaay ñaaw reporter sans frontière naan liberté de presse daal deltu na ginnaaw ci réewum Sénégal Abdou Karim Fafana naan ak classement bi fu mu mënti toll lu ñu mën a waxe liberté de la presse moom am na ci réewum Sénégal Matar Sylla naan nguur gi ci boppam naj gi mu naj tasum xibaar yi bàyyi dangi na bàyyi yaramam mu daal di wàcc colonel Wardini mel ni kuy dal ci taskatu xibaar yi naan leen luñ leen waxal yéen it def ngeen ci aslëf nekk leen ay responsable te bàyyi yenn yi direct news naan man en tout cas maam les Camara tey jii bu dekki woon mbaa du am gàcce ci li nga xam ne am na ci réew mi ci deltu ginnaaw gi nga xam ne liberté de la presse deltu na ci ginnaaw yéen kaay bi naan maan monument bu journaliste waxuma la Sénégal waaye ci àdduna wërngal këpp moo daal di nërmeelu ba président Macky Sall di ko sargal tuddee ko sis waxtu woow na tasum xibaar ci réew mi mel ni lu ñu xoj mel ni lu taw a màgg yéene kaay bi mel ni ku naan man cey bu maam lees dekki waatoon le soleil yéene kaay naan man en tout cas sàll ngay doxal ma ni stabilité sociale waaye tam jëm kanam ci wàllu koom lii da la tegu gëtam secteur privé bi daal la sall lëkkalool fi mu ne ñuy doxal ay mbir yoo xam ni maar day taal yi laas naan kon loo doxal doxal yow président Macky Sall bul fàtte dëgg-dëgg ne faju gi ci réewum Sénégal mi ngi mel ni tulleeg male réew mi dara dara doxatu fi yéene bi defub dossier ci wàllu paj moo xam ne daanaka dafa yokk guuta askan wi scanner yi paan na IRM yi paan na la ñuy wooye radiothérapie ci réewum Sénégal doxatul machine u dialyse yi bariwul couveuse yi daanaka bariwul ci réew mi te loolee bu ñuy wax pàccim réew moo ko tax a jug tax ba fii ci réew mi ñi nga xam ni dañoo am woppuk diabète am woppuk xol am cancer wala i traumatisme maanaam ña nga xam ne seenu paju dafa laaj di jaabante ci l'hôpital tiit nañu jaaxle nañu machine yi daanaka yu bëri paan na ci réew mi ci loo xam ne nag la ko dox ñaar fukk jàpp fanweer ci million la yéen kaay bi naan ci ñi nga xam ne dañoo am wopp ñu war leen defal li ñu duppee angioplastie boo demee l'hôpital principal rek daanaka ñaari million nga cay fay cash soo ko amulee Idrissa Pouy wala it fan ngay daal di jublu foofee moom dafa daal di fees ba maar day taali yéene kaay bi naan man couveuse xale yi nga xam ni dañoo juddu matuñu ñu war leen yóbbu ci couveuse daanaka couveuse googee amatul ci réew mi roi Baudouin moo ko amal bariwul Albert Royer Sétéo ak Abbas Ndao te lañu am bariwul Dantec moo ca bari le te fi mu ne nee nañ ko ràpp daal di tëj las naan man fi mu ne Sénégal fii la toll ci wàllu paju mi daal di xaar sa bés libération yéen kaay naan maan boobu doyen des juges ma jébbal juróom-ñeenti mandat de dépôt ne nee nañu dañoo yoroon li ñu duppee ay cocktail molotov ñoom juróom-ñeenti ñëpp ñu daal di leen di yóbbu kaso toppee leen nag juróom-ñaar ci mbir yoo xam ne bokk na ci wàllu terrorisme taskatu xibaar bi di Babacar Touré yéen kaay bi naan maan mi ngi ci contrôle judiciaire tribune sport naan maan xëccoo baa ngi ci basketu réewum Sénégal ba tey ma ngay xam le loo ci mënti waxit ci réew mi maître Babacar Ndiaye mënatul samp ndëndëm ci wàllu bas basketball ndax candidature am bii dafa illégal libération yéen kay naan maan réew mi du def lu ne weng moo fi am ca kër ma kumba soxna Sidi Awa Ba enquêteurs yi seet nañu ba seet waaye jonn waa ji am ñeen fukki at ak ñaar lan jàpp ne moo ko faat moom mi nga xam ne moo gis soxna si njëkk defuk interview te naan peine de mort na dikkaat ci réew mi yéene kaay bi naan maan enquêteurs yi seet nañ ba seet nee ñu moo ko faat ndax nag waxtu wa awa ba di faatoo ca guddi ga téléphone am borne na foofee di na fa ay yoon yoon téléphone am borne te bi ñu nee suba la néew bi di di la wax xaritam nañu ànd ci àll boobee xarit boo suba sa la fexee ba ñu gis néew bi mim na yéene kaay bi naan maan waaye daal tàbbal nañ ko kaso l'observateur naan maan réew mi li fi am su laajul sangit dina ma jaaxal lool lu toll ci junni ci explosif daal dinañ koy gis ca Kédougou ñu ne waaye benn xale bu am ñetti at ñu ne téppét loxoom daal di koy dagg daal di koy sànni ci mbalit mbir maa nga amee ca sowaal ak lu mën a am mbokk yi ñuy ñaan jàmm te yendoo jàmm